Jolof bokk ak moom ñu bokk Jolof muy monsieur le maire Daouda Ndiaye ma buñ leen tàcce ko bu baax ginnaaw monsieur le maire Daouda Ndiaye honorable député maire Moustapha Mbengue mi ngi ànd ak ki nga xam ne aussi c'est l'infatigable ki nga xam ne foo gis Moustapha Mbengue gis ko lu Moustapha Mbengue wax loolu la wax lu Moustapha Mbengue wax waxu ko muy le monsieur Matar Mbengue bu ngeen tàcc ko bu baax a baax il est fidèle, il est loyal et il aime l'honorable député Moustapha Matar yàlla na si jàmm yàlla mi ngi ànd aussi ak ki nga xam ne akoob ah, sama bàjjan la sama yaay la ki nga xam ne tey Benno Bokk Yaakaar su amee histoire fii ci Kër Massar ñëpp xam nañ digganteem ak honorable député maire waaye digganteem ak ki nga xam ne mooy président de la république mu jiite URD fii ci Kër Massar Sud muy suñu yaay sama bàjjanu bopp muy Maman Dieynaba Kane

vraiment nit koo xam ne aussi kenn naatable wu bëgg-bëggam ci président de la république muy madame le maire Nabou Leye mu ngi ko bu baax a baax. honorable député maire Moustapha mbeng mi ngi ànd également ak une lionne ki nga xamante ne ñëpp xam nañ ko fii ci Massar Sud su maire waxé waaw waaw la su waxé déet déet la mooy madame wouri Sow dëkk Kastor Satrang mu ngi politique affaire ñu leen di dalal jàmm fii nga xamante ne mooy terrain Grand Médine honorable député Moustapha Mbeng mi ngi ànd ak

gars yi deux bi ñu yaatal ko deux bi gars yi deux bi ñu yaatal ko mbëri waaye di def des actions extraordinaires muy monsieur Ababacar Mbengue nga xamante ne bokk ci conseil départemental bu Keur di la wax ne vraiment kontaan nañ ci sa taxawaay gis nañ aussi ni nga taxawee sa rak sa mag kii di honorable député maire Moustapha Mbène kon mi ngi ànd également ak ki nga xam ne mooy ñoom Modou Sow ñoom Tafali ñoom Vinci ñoom Codé Diagne ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci li nga xam ne ak maman Diallo Diop aussi gis nañ ko fi mooy mu ngi ci biir délégation maire donc ñu neex nag xool jant bi ne gisuma waaye ñun gis nañ xam nañ lépp fii la doo ko donc dañ yaa ñaanal yàlla yàlla def jàmm donc sans plus tarder dañuy jox président mu daal di àddu voilà donc ñu jox tabaal yi mi nga xamante ne borom Kër Massar moo fi yegg si ànd ak délégation bi am solo teewal fi ki nga xamante ne nii mooy madame la ministre Aminata Assome Diatta kon nag képp damaa bëgg ñu ànd jox ko majorité assemblée nationale ndax macha allah mérité waa gars yi maa ngi leen si waay ñoom ñëpp xam nga laa bëgg ngir yàlla war a suul yéen ñëpp ngeen arrière ñu mën a tëgg combat bi boo xoolee saako mi ngi si ginnaaw mais saako yi sax feeñul ay eh, Aliou Diop balaa ngay tëgg balaa ngay siffler combat bi naka def arrière autorité yi mën a seetaan combat nga arrière rek ngeen jàpp si ñëpp commune de Kër Massar. waaw euh, monsieur le maire gis na ne yaa ngi organisé benn soixante-douze heures mu commencé depuis barki démb ñu gis si tey ful peuple mun na population bu bëri ñëw fekkee ko euh, mu am làmb bëggoon nañ xam programme bi lan la ak lan moo taxoon nga organisé ko. waaw soixante-douze yi moom dañ ko organisé ndax dafa am ay jeunes yu fi dëkk euh, yoo xam ne tuddee seen bopp nouvelle vision vraiment nekk ay xale yu am engagement. dëkkandoo ak man fii nag bon ñoom di observé temps yi les passé nañu ñoom fi waxtaan ak man ne ma monsieur le maire ñun daal bëgg nañu vraiment comme tey Kër Massar nekk na département ñu gis la nekk ci leader bu département bi gis la aussi lu bari loo xam ne def nga ko ci département bi mais mën nañu wax ne def nga ko ci Kër Massar jamono bi muy nekk commune tey loolu nag ñun dañu expérience boobu nga dund ak yooyu nga xam ne dañ nga ko def bëgguñu euh, relâchement di ci am dañu bëgg loolu nga gën ko continuer di ko def parce que gis nañ ni suñuy enquête yu ñu def ba nga dalee dafay activité boobu doo meer doo dara tey boo defee ba nekkatoo meer nekkatoo dara aussi da ko war a continuer mais war a ko bàyyi man nag xalaatuma ko sax ndax man Kër Massar laa dëkk Kër Massar laa am sama lépp Kër Massar la kon nag man lépp luy développé Kër Massar rek surtout nag lu jëm ci mbirum jeunesse wala mbirum femme kooku moom soo ma ko waxee dama ciy sawar donc ci la ñu ne kon nañu essayer dugg ci koñ yi ci ASC yeeg ñëpp waxtaan ak jeunesse bi d' abord dans un premier temps lool lañ njëkk def bu ñu duggee dem nañ ci ASC fii ñu toog ni maag yow def nañ ci ay réunion avec les ASC plusieurs fois ay association de jeunes yu nekk ci yenn koñ yi ay góor ak jigéen bu ñu paree nag ci la ñu ne nañu def benn 72 heures boo xam ne day am ay activité sportive day am ay activité culturelle activité culturelle yi gis ko am na làmb am na amoon na tànn beer am na yëpp activité sportive yi aussi football bi yëpp mu ngi woon ci amoon na tamit ay débat yoo xam ne jeunesse bi ñooy toog waxtaan ci violence yi nga xam ne mi ngi am ci réew surtout ci jeunesse bi ak ci politique bi ak ci mbirum employabilité des jeunes yooyu yëpp ñu def ci ay waxtaan yu am solo yoo xam ne tax na ñu mën a bi gën leen xamal fi ñuy teg seen tànk ak li nga xam ne ñoom noonu lañu ñu war a di comporter noonu la ñu war di doxee ak lan lañ war a participer ñoom ci seen développement wu réew donc yooyu yëpp bi ñu ko defee aussi terminé ko tey nag ak la grande finale euh, ñu ñëw nag indi tamit suñu touche maanaam indi ay enveloppe financière tamit jàppale ñi nga xam ne nag ñoo ci doon yëngatu nekkoon ay ndaw ña doon bëree gis nga leen combat yu mag yi jox nañ leen ku nekk cent mille yu ndaw yi jox nañ leen ku nekk cinquante mille francs jox nañ jigéen ñi tamit seen activité culturelle yi nga xam ne mun a doon organiser mais aussi équipe yi doon participer ci tournoi bi équipe bu nekk tey mero ñi nga xam ne benn match lañ football rek toog am na jeu de am nañ ballon ñi nga xam ne tey ñoom ñoo demoon final am na jeu de maillot am ballon vainqueur bi am na cinquante mille ak coupe vaincu bi am na vingt cinq mille francs donc loolu tey moo nekkoon activité doon def mais aussi les deux zones ma félicité leen bu baax mu président Saliou ak Djibi Sy ñoom it sollicité nañ mën ne dañu bëgg def final zonal yi ndax def ñu ko woon daaw mais ku si nekk zone bu si nekk yëkkati naa deux cent mille jàppale leen ndax ñoom dama nekkee maire dama leen daan jàppale bu baax a baax ñuy def seen i activité tey même bu ma nekkul maire am na yeneen maire yu fi ne teewul ñu ñëw naa leen jàppale même bu leen maire yee di parce que ñoom euh, nee nañu il faut ñu bokk ci fête bi ñoom en tant que des sages ay vétérans muy vétérans cité yi ak ay bi ñuy ay nomade ak Grand Médine football nañu ñoom it ñaari ASC yi ASC bi su ne jàppale nañ la ci vingt cinq mille francs pour nga dem naanee ko ataaya ndax ñoom dañ doon ñëw rek di neexal fête bi def benn ouverture lu symbolique kon daal fet bi maanaam mag ñi jeunesse bee taxoon mais mujj gi mag ñi ñëw nañ fekk si leen jigéen ñi ñëw nañ fekk si leen loolu nag sant yàlla alhamdulilahi rabbi alamin en tant que ay responsable politique tamit dëkk ci gox bi jàppale son excellence le président la république Macky nekk ci période bi nga xam ne période campagne électorale la aussi ñu nekkoon tamit maire sortant tey bu ñu gisee nit ñi ni ñuy dawee di ñëw suñu loolu lañ ci am fierté di ci kontaan bu baax a baax ndax nit nekk dafa fi maire ba wàcc mënatu a jàkkaarloog askanam mais boo nekkee maire ba wàcc tey nga mën a jàkkaarloog sa askan mën di ànd ak ñoom di foo ak ñoom di réew ak ñoom di organiser ñoom di dem ak ñoom di dikk ak ñoom vraiment loolu lu am solo la te loolu dañ koy continuer ndax xam naa ne tey ci suba ñu ngi doon distribuer tey ci suba distribué nañu cinq moto pompe jox naa Matar Mbengue la commune de Kër Massar Sud cent cinquante mille pour mu jënd ay carburant pour cinq moto pompe yi ñu distribué tey pour ñu jàppale leen ci carburant xam naa fan yi di ñëw dinañu gisaat bu baax a baax ci loolu ñu continuer ko ci ndox mi ndax Kër Massar am na ruq-ruqaat yu bari yoo xam ne canalisation yi excès gu fa ñu ngi am problème ndox ba léegi ñu. Unity v Unity TV.